nga xam ni euh, muy fanu démb bi ak fanu tay bi euh, ban jàngat nga si nga si def. waaw ah, jërëjëf Pam Gagne euh, je crois que sànq am na heure bu ñu fi wax boo xam ne aussi rectifier ko day jaadu. Mhm. parce que nag man mii maa ngi woon ca meeting ba. parce que man meeting ba dama fa doon def ndaxte damaa demoon wàllu ku loru ku loru mooy koo xam ne dafa nekk ci réew mi am droit def politique comme tous les sénégalais ñu bëgg ko stigmatiser bëgg ko jaay doole ni doo fi politiquer doo fi nekkee candidat par force parce que yow la peuple bi bëgg parce que foo romb embouteillage am bu ñu la woowee tribunal dañ lay wax fooy jaar par force bu ñu demee sax ba ca tunnel ba bu ñu lay gazé kenn du xam ku tiire alors que force de l'ordre yee ngeeg yow ñëpp gis nañ ko biñ ko mujjee woo au tribunal ma gis ne kooku loru la te comme man ragal ma ma mere damay dem comme damay dëkk ci quartier gis ko loru ci quartier bi nekk ci jafe-jafe ma dem taxaw ci wetam loolu moom fa yóbbuwoon de faruma ak moom kon nag du vingt 22 vingt 22 h cinq laa dugg sama kër man à Pikine te bu ma jeexaloon foofa te meeting ba bi Ousmane Sonko daaneelee laay doog a taal sama oto ñibbi te taxaw naa ko sax lu yàgg parce que nit ñi dañ ma fa wër vraiment c'était difficile sax pour ma wàcc dem donc du woon 22h la jeex je reconnais nag même que bu dee. ca demande ba 19 heures moo ca nekkoon romb nañ ko parce que wax dëgg yàlla euh, heure bi meeting bi tas jàppuma heure bi mais je sais que au moins 20 heures jotoon wala mu jege ko waaw donc précision la woon rek mais li am solo quand mooy dépassé nañ waxtu yi mais loolu moom yàgg na am ci manifestation ñun dañ koy def toujours muy am marge de tolérance